al ibadatu xidma di jaamu yàlla ak liggéey liggéeyal lislaam ginnaaw dañoo dëgmal tabaski it leeral yenn mbokk jullit yi fàttali leen boog ak itam dana baax ñu xam ne tabaski sunna mu akkada la ci ab jullit bu ko man man ngoo xam ne du ko lor kon ñu xamee ci ne képp koo xam ne la koy jënde day jeexital ci sa dépense wala sa yu mënta ñàkk ci at mi te tabaski nekkatul sunna ci yow kon sunna la ak jàmm yàlla la bàyyi ko xel ku ko man sunna la ci moom ku ko mënul wàcc na ko bi suñ nga déggee noonu rek dana woyof te daanaka nag bu ñu xooloon loolu ñii ñi ñi ko man mu nekk sunna ci ñoom duñ bari lool waaye buñ ko defee rek mu baax xëy naa ñu bàyyi xel it ne comme jàmm yàlla dam ay charte yu muy àndal charte yi bokk na ci gàtt bi ñii ñuy tabaskee faw na mat at loolu mooy ma sëw imam Malik loolu li tax a wax mooy xar yi ñuy wax ay laadum ak yu ni demee am na ci léeg-léeg xar yoo xam ne day am juróom wala juróom benn weer rek toll toll noo xam ne day mel ne mat na tabaski te fekk matu ko faaw ñu bàyyi xel at na mat at faaw ñu bàyyi xel it ayib yi nga xam ne bu ci nekkee du doy te bokk na ci euh, tabaski day su ko bokk day sul bokk njëg gi day sul bokk yàpp masal ñaari nit mënuñu bokk ku ne joxe dara ñu jëndum xar bokk ko tabaski buñ ko defee kenn ci ñoom amul tabaski naka noonu it ñaari nit bu ñu leen xar ñu bokk ko rende ko mu nekk seen tabaski kenn ci ñoom amul tabaski ndax ñoom ñu bokk yàpp li mën a am kay mooy yow nit ki mën naa jënd am xaram yéene ci boppam ak ñam jaboote ci ñetti charte mooy ñi ngay jaboote na doon ñoo xam ne say mbokk lañ na doon ñoo xam ne yéen a dëkk na doon ñoo xam ne yaa leen di dundal soo bu amee mën ngaa masalan nit ci këram mën naa reyum xaram yéene ci ay way juróom yu ñàkk yéene ci ay doomam yoo xam ne mënuñoo tabaski ak soxnaam mën na ko yéene waale su ko defee tabaski wàcc leen tabaski nag warut euh, borom kër mu di ko defal soxnaam loolu lu ma ta xam la ñi nga xam ne borom kër nit ki moo leen war a tabaskeel mooy ndeyam ak bàyyam bu ñàkkee ay doomu yu góor bu ñuy major mën a liggéey ay doomu jigéen ba ñu am borom kër waaye soxna moom tabaski ko warut la waaye nag ci njaboot gi la bokk boo ko yéene waale woon tabaski wàcc ko donte man nag waaye su ko mënee nag sunna la ni mu nekk sunna ci góor gi moom mu tabaski waaye nag su ko borom këram yéene waale war sunna gi mu nekkoon sunna tamit dafay wàcc dana am yool yoolu tabaski te te te dara njuut su ko defee sunna gi nag sartuñ ko ci góor sartuñ ko ci jigéen sartuñ ko ci mag sartuñ ko ci ndaw képp ku ko man rek sunna la ci moom ba ci ab jirim ku bàyyam faatu mu doon gone gu ndaw bàyyee ko alal sunna la bu ki ñëwee ay kilifaam jël ci alal joojee njëgu tabaski tabaskil ko loolu sunna la góor jigéen it sunna la ci képp ko man kon loolu it bokk na ci li mat bàyyi xel waaye di ko rendi ginnaaw bu ilimaan rendi ba noppi moo tax ñun ñi nga xam ne dañuy julli ci jullikaay bu imaam sëlma dañu bëgg a ñibbi bu ñu demee dara yi nañ moytu loolu nañu nekk ba imaam xutba ba noppi ba rendi nga xam ne ku dem këram xam na ne imaam moom rendi mu doon rendi ku ko deful ci masabu Malik aw yàpp nga am waaye amoo tabaski loolu it xas bay def lu baax moom fexe ba mu tënku ca nam war a mel loolu baax na ci loolu it ñu koy fàttali mbokk yi waaye di fàttali it ne euh, li ñu bëgg ci tabaski mooy sopp nañ nga lekk ci saraxe ci maye ci loolu sax baax na euh, waaye nag kenn du ci jaay dara kenn du jaay dara lu bokk tabaski deesul jaay yàpp bi deesul jaay der bi moo tax dañuy wax ne ki la rendil xar mi wala mu feesal la ko doo ko fay ci yàpp bi bu dee fuñ baaxoo ku feeskat baaxoo jël baat loolu fay la kon boo koy fay fay ko xaalis maa nga fay ko leneen bu doonee ko ñàkk nag nga di ko may maa nga di ko sarax sañ ko caa may ngir loolu waaye fekk fay bokk ko waaye duñu wax ne moo ko rend rek kon moo war a jël baat bi wala moo war a jël der bi suuba ak fay la te tabaski eh, dee su ci jaay dara dëgërut ñam yàlla dee su ci mayit koo xam ne du jullit te bokkul ci sa njaboot dee su may maanaam dëkk ak ñu dutu jullit lu ngeen jàmmoo jàmmoo nag jàpp tabaski nga di leen ko jël di leen ko yit loolu lañ koy tere bu fekkoon nag day koo xam ne daa da da nga nekk liggéey foo xam ne sa ah, yaa ko sa la bokk bokk sa njaboot ñi lay liggéeyal di sa fóor wala ñu mel noonu nekk sa biir kër moom donte du jullit mën nañ ko caa jox man na caa lekk waaye di tibbal ñoo xam ne ay dëkkandoo lañ wala yu mel noonu wala ay xame lañ te du ñu jullit moom dee su leen jox ci yàpp tabaski euh, loolu mat naa xam euh, am na euh, nañ jullit ñi bàyyi ko xel jaamu yàlla la kon nañ ko yemale fi mu yem defee it loolu mooy tabaski kon lu am solo loo xam ne jullit ñi war nañ ko bàyyi xel denc yàppoo it terewuñ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam am nay jamono doon na tere denc ci yàpp tabaski lu ëpp ñetti fan boobu la ko loon ay doxandeem yu daan ñëw Madina te amul lu lekk daanaka mu bañ ñu denc yàpp yu ñoom ñu lor waaye ginnaaw bi la wax ne dagan na ko moo tax kon kum nekk sunna ci yow lu kër gi jaboot gi bari bari kenn kenn kum nekk sunna ci moom ku ne ma naa rey waaye su boobaa nag mën nañoo saraxe maye lekk ci waaye mën nañ caa denc di ko jariñoo bañ ko yàq waaw doonoon nañ sunna te it du alal ju yàqu dañ ko jaamu yàlla eh, waaye bàyyi xel mbokk yi ne tabaski ci boppam nag bis bi ci boppam dañoo bëgg ku ci bàkk yàlla lu bari tàmbale ko ci ilimaan buy génn di kabbar nit ñi buñ demee ci jullikaay ba di kabbar ba ilimaan ñëw ci biiru xutba bi it fu ilimaan kabbaree ñu ànd ak moom kabbar naka noonu àllarba jooju nga xam ne mooy bisu tabaski bi la fa dale àllarba alxames ajjuma ba gaaw ci fajar bëgg nañ saa bu nit ki jullee farata ba sëlmal na wax allahu akbar ñetti yoon bu defee it altine kii talaata nga xam ne mooy yow mu arafa ci noonu bëgg nañ ko ko woor yéen ko islaam nee na dana kafaara bàkkaari ñaari at at mi ko jiit ak at mi ju topp naka noonu altine ji yow mu tarwee sopp nañ ko nit ki ñu sopp juróom-ñeenti fan yépp sax nag juróom-ñeenti fan yëpp ñu bëgg rawatina ñaari gis foofu dinaa mbokk yi ne leen yow maarafa ci jullit bu ne wala bëgg réew mu ne fañ nekk seen juróom-ñeenteelu fan mooy maarafa loolu mooy li gën a dëgër ci waxi borom xam-xam yi ñu ko xel kon fii ci senegal Sénégal àllarba mooy bisu tabaski kon talaata mooy yow maarafa euh, bëgg nañ ko ko war sax na it loo xam ne ñu ngi koy fàttali jullit ñi xëy na suñu sori na waaye yonent ay sam daa waxoon ne bu tabaski teroo ku nam ma tabaski bu mu lewwi ko bu mu wat yenn kawaram ba ba muy su ko defee bisu tabaski bi dañuy bëgg nit ki bu fajaree mu jàpp tàmbalee fajar bu mu lekk bu mu naan ba julli ji ba ñëw ba euh, dog ci lu bàyyi koo ci tabaski bi xëy na resto yi daa gën a jàppandi waaye du sart na xanaa roy sunna yu islam loolu defoon waaye liñ bëgg daal mooy nit ki bu xëyee na jàpp na xëyee na jàpp ba julli ji ba ñëw bu ko defee buñ defaree gàtt bi mu door ci ñëw loolu bokk na ci sunna yi nga xam ne ñu ngi koy fàttali mbokk yi ñaan suñu borom eggal lañ ci jàmm nangul ñu tiyaab lañ ci def lépp eh, jaamu yàlla yi mu nangul ñu ko te dencal ñu tiyaab yi fi yàqu eggut di ñaan it mu sàmmal ñu suñu kilifa sàmmal ñu suñu diine sàmmal ñu suñu réew mu ñu ci musiba ya balaay yi ñu ngi ndokkeel ñëpp di leen ñaanal jàmm ak nag alaxira di sàkku ñaanal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk mi laaj nee na dafa dégg ñu wax ne kenn ku ku njëkk a rendi sa imaam doo am tabaski mu ne ndax bu fekkee ne ilimaan dafa amul am tabaski nag ndax daa war a wax keneen jiite walla euh, day wax nit ñi bu demee rendi walla ñeneen dañ koy indil seenum xar waaw loolu de moo sax ci mazhab Malik mooy ku njëkk a rendi sa imaam amuloo tabaski bokk na ci sart yi tax tabaski wér ci kuddul imaam ci bis bu njëkk bi mu nekk ba ilimaanam rendi ba noppi bu dee ñaareelu bis bi nag koo xam ne mu doon xar ci bis bu njëkk bi waaye ci ñaareelu la ko am wala ñetteel bi foofu moom bu fajar xasee jot rek mën naa rendi donte sopp nañ nag mu nekk ba yor yor bu fekkee nag ne ilimaan dafa amutum tabaski moom ku ñëw ci jàkka ji mu julli xutba boo delloo sa kër nga xam ne bu am toog nga diir boo xam ne bu amoon tabaski rendi na ko sañ nga rendi war ko dem sag bu ko waxee bu ko waxut kon ku jege ci jullikaay bi ginnaaw bu imam salmile boo àggee sa kër mën nga rendi waaye du sartu ñu ne faaw ñu andil ko meneen xar muy rendi du sartu ñu ne ko faw kon na jiital keneen sañ naa bañ a amum tu bés bu nëpp jiitee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa dëgg kilifa gu wax ne ren du tabaski ngir solidarité ak ñi nga xam ne mënuñoo jënd xar muy laaj ba xam loolu ci diine wax waaw tabaski de sunna mu akkada la ci wax yi li gën a li ëpp muy jumhurul ulama ñëpp ci waroom xam-xam yi dañoo wax ne sunna mu akkada la sunna mu akkada nag bàyyi ko du jur bàkkaar waaye ku ko bàyyi ku ne man ko nag xañ na boppam yiwu rëy rëy moo tax dañuy bëgg ku ko man ko ne mu dundal ko ndax dundal sunna dañu wax sax ne coobarewu jël njëg gi di ko dimbulee ay nit wala saraxe ko dundal sunna si moo ko gën ndax dundal sunna moo gën coobarewu ndax coobarewu waru la la ko bu la neexee def bu la neexee bàyyi lii nag dañ la koo sant kon ku man mu def ko mooy li gën nit ki nag sañ na koo man ba noppi ne du ko def moom ndax sax na ne Abubakar ibnu Sadiq Umar ibnu Xataab ak yu bari ñenn ci saxaaba yi daan nañ bàyyi tabaski te fekk ñu mën ko booba dañuy wax sax liñ jublu ngir bañ nit ñi jàppe ko farata ak bañ ñeneen ñi di leen roy te fekk mënuñu bu dee lu njëkk li moom teggiku na maanaam bañ ko jàpp ne farata la ñëpp xam nañ ne léegi tabaski du farata moom amma bañ ñu roy la ci nag bu dee nit koo xam ne nii eh, ak ñàkk tabaskeem dana leen nit ñi ba ñu ko mënut bàyyi su boobaa lu baax na nga xam ne kon ñu ëpp wala boog ñu ëpp ci nit ñi dañ lay déglu te boo bàyyee ñoom dana woyof ñoom seen bañ a tabaski donte mënuñ ko su boobaa loolu baax la ndax te dugg ci buntu boobu waaye su demewul noonu nag li gën mooy nit ki mu tabaski dundal sunna ndax ñi nga xam ne mënuñoo jënd xar ñoo ñu tabaski du sunna ci ñoom. tabaski du sunna ci ku ko mënu ku ko man ku ne nag sunna la ci moom mu def ko man gi it nag boroom xam-xam ñu ngi ko tënk ci koo xam ne njëg nga koy jënde doo ko aaja woo ci biir at mi maanaam bu mu doon ay dépenses yooyu dajale wala loo war a fajoo wala loo war a fay ay location nga xam ne boo ko jëndeem tabaski dana bàyyi ab góom ci yow ay weer képp koo xam ne sa mbir noonu la demee tabaski du sunna ci yow tabaski du sunna ci yow kon ki mu ki ko mënut amul bàkkaar amul dara bu ñu leeraloon nit ñi jàngal leen yar leen danañ xam ne ku mënta tabaski moo ki mënta joxe asaka ñoo yam gàcce néew ci kenn du ci xas nit kenn du tedd nit ñu bari ci nit ñi fii ñu joxe asaka ndax mooy waruñ ko kenn du ko jàmbat kenn du ko ñaawlu te loolu farata la ponk la ci ponk lislaam yi ñi ajut màkk yi te waru leen kenn waxu leen dara naka noonu tabaski bi nga xam ne sunna la moom itam noonu la demee ku ko man moom lay sunna ci moom ku ko mën wàcc na ko kon gi ko man nag mu daf ko dundal sunna si yonent bi islaam moo gën rawatina bu amee doole joo xam ne man naa rayub gàtt moom ak njabootam bu neexee rey beneen wala yeneen yéene ko ñeneen ñi su boobaa dee am ñaari tuyaaba defal na boppam dafaaleel ñeneen ndax dañuy wax ne euh, tabaski deesul bokk njëg gi deesul bokk yàpp yi waaye nag sañ saa bokk yool masalan ki nga xam ne dafa jëndal boppam am xaram te ñu ne cee yéene boppam ak ñim jaboote te di leen dundal te ñu ne ci biir këram ñooñu ne leen cee yéene su boobaa même bu leen tabaski wa waroon dañ di wàcc kon nit bu awee xaram fekk ay ñaari way juróom ñàkk ay doom yu góor wala jigéen buñ majeure gudd wala jigéen ñi demaguñ kër ñu ñëpp mën naa rey mel ne xar yéene waale leen li ñuy wax rek mooy du ci sañ a yéene waale koo xam ne charte yu dajul ci moom du mbokk wala dëkkuñ wala dundalu ko waaye nag mën naa rey beneen gàtt boo xam ne moom du ci yéene boppam su boobaa nag ku ko neex mën na ko ca yéene wala kon li gënoon mooy nga rayal sa bopp yàgg sa njaboot waaye rey yeneen wala beneen wala yeneen ngir ñoo ñu nga xam ne dañ leen xam wala nga bëgg leen yéene ñu am tuyaaba su defee da nga am tuyaaba yi def lu baax ak jàppale keneen mu am tuyaaba ju baax loolu jamono ji ñu toll moom loolu mooy li gën ñu defal ko jullit ñi donte nag comme neex na ne man bàyyi na du am ci loolu waaye nag yiwu rëy faat na ko ci tuyaaba ji nekk ci tabaski ndax bari lool ay ay yiw yi ci nekk ci defal gi sa bopp ak saraxa gi ngi saraxa ci ab weer maye geeg yooyu yëpp ay tuyaaba la yoo xam ne yàlla da ko da ko da ko da ko yéene jaam ñi sant leen ko bëgg ñu koy dund wallahu taala alam